ginnaaw maa waxoon waxeet Abdoulaye Wade fëllatina feneen maa defoon défaite vox populi nañu ginnaaw leetar ba mu fi bindoon doon ca wax maître Madické Niang lu ko neex musiba ak mbelengaan mu ne mu yàkkoon ko ko ca daanaka ne ko Madické dëmb nga rek la ko ca waxul woon Abdoulaye Wade bindaat na beneen leetar démb di ca xamal ma di Madické Niang ne keroog ba muy wax xol la waxee dafa wax te xalaatul mu ne ko ca leetar ba war nga maa xam-xam gu toll ne dama demee woon xadaar ci mbir yi li ma bëgg moo di li fi jot a jaar ñu gas ba mu xuutu suul ko fàtte ko Le Quotidien nañu ci barkeb Serigne Touba réeroo gi amoon wadd ak ma dikkee jeex na wadd nee na ko li nga jël yàlla sunu borom seede giñ ci Serigne Touba Cheikh Bamba Xaadim Rasul mi ñu bokk tax na ma gëm ne li ngay wax dëgg la ci yow Sud Quotidien nañu Abdoulaye Wade mi fi ubbi woonub defante diggam ak maître ma dikkee ñaa dellu na gannaaw ci coow li Les Échos nañu moom kay virage bu 180 la def bu nuppi jël coow li sippi ko ay sursam maanaam ña demoon ca moom ne ko maître ma dikkee ñaa moo nekk ci kenn ku nekk ci ñoom wanaasu nga mer ma nga guuxoon vox populi mel ne kuy indi ay firnde ci loolu ndax mi ngi ñuy xamal ne kii di maître Madické Niang bi mu jàngee lettre Abdoulaye Wade bi bu nuppi dane fàtte naa lépp teg naa lépp ci suuf teg ci di sant askan wu ak di leen baalu àq ci naqaru xol ak xol bu jeex bi ñu amee bi ñu déggee coow li réew mi quotidien nañu ko coow lii coow la ca des li ñu war a xam kay léegi moo di ana kan moo nekk ci ginnaaw Abdoulaye Wade di ko xambu ko manipuler ba coow lu mu génn ba dugg ci rek duggaat ci la tribune nañu ñaawoo mu di clash bi doon xeeñ ci diggante Abdoulaye Wade yàlla wis na ci ndox mu sedd coow la fay na la Sénégal nañu wàdd ak ma dikke jàmmoon nañu l'observateur xëy ànd ak sociologue bii di Serigne moor mbay politologue yi di Yoro Dia ak docteur Ousmane Ba di jàngat jikkoy Abdoulaye wadd yi ndax dañu koy trahir maanaam ndax dañu koy wor moom Abdoulaye wadd wala Wade moo ànd ak daaguwaale woo xam ne munta ànd ak kenn Serigne Mor Mbaye nee ci l'observateur Abdoulaye Wade dafa bëggul ku suufu Karim wadd ci parti bi Yoro Dia nañu xeexu Abdoulaye Wade bu mujj jamono ji moo di fexe nu mu jëlee parti démocratique Sénégal teg ko ci loxoy Karim Wade docteur Ousmane Ba ne waa l'observateur PDS ñëpp dañoo jàpp ne alali Abdoulaye Wade la anki kay di laaj ndax coowal Abdoulaye Wade ak maître Madické Niang dina fi doxe fay ni dégg nañu maître Abou Talib Gueye di xarit ci maître Madické Niang muy sàkku ci Madické Niang mu sampu ndëndëm doon candidat ci présidentielle yi yi direct info nañu ginnaaw Karim Wade Khalifa Sall seenu bokk ci wotey président yu yi tàq na suuf lool est seeni militant duñu booloo def benn dànk mu di karimiste yi bëgg a jeexal ndax ma ngay fàqat militant yi Idrissa Seck yi benn benn di yóbbul Macky ki ci mujje di Ami Diouf moom non seulement dafa jóge ca Idrissa Seck dem ci Siré Dia waaye dafa taxaw temm ci defanteeg Idrissa Seck centre de vote yi nga xam ne Idrissa Seck moo fa mas a teg tànk ca Thiès moom la bëgg a nangoo ci moom mu di centre Modakan Iba Katiba Cité Pilo ak centre professionnel centre des œuvres universitaires bu Kees ak bu Bambey am nañuy gan ay mbokkam def na ko yéenekaay bi nañu jabar ji fi fàllu seen bàyyi moom ak ñaari frère yu fàllu seen ñoom la fa yóbbu ñuy liggéey mu des nag léegi mbir yi sotti ba ñu jël doom ji fi fàllu seen bàyyi def ko pupille de la nation soleil national xëy ñu xamal ne président de la république Macky Sall démb ca ndajem conseil des ministres ma sant na gouvernement bi ñu góorgóorlu ba wàccoo ak déggoo yu dox seen digg ak jàngalekat yi footballkat bii di Sadio Tottenham football ak Paris Saint-Germain football ak Chelsea football ak Naples football ak Manchester City record yéen kaay xëy di football ak moom saajo maane ña ngay waxtaan ci lu bare bare Sadio Mané dem sax ca waxtaanoo ba xamal journaliste record yi ñi mu jàppee ay royukaay ci wàllu football maanaam ay idolam nee na ñëw la ak El Hadji Ousseynou Diouf